àq di yox ñëpp tamit daal di ñuy baal àq bétti baal ma àq. baal naa la baal ma àq. yal nañu yàlla boole baal déedéet ah, ah. baal naa la baal ma àq saa njóogu. bétti man mënaguma laa baal. ma baaluma ah, la dama ne la baal ma àq. nga ne baalatuma la. bétti baaluma la baaluma la man it. ah waaw. bét dama baal baaluma la baal nga ma ba noppi salaam mi ñu la jiitu baalu baalu egg sama xol bu yeggut sa xol it xas nga ko ba wax kon donc loolu jeex na tàccu loolu waaye <laughs> alhamdulilahi rabbil alamina sama aaw buuru këram la. Eh, eh, vraiment eh, théâtre bi jeex na dégg nga rek leen sa fecc. yaa ngi cabane wu jege nga nekk ci biir kër gii. Ah. cabane wis di ba léegi. ñu ngi romb di saafara daal gis nga man benn jeeg du ma ko manal muy cax. vraiment ñu ngi am mbégte di am kontaan te di del seeg nit ñi wal fa jëm kanam xurda bi topp suñu ginnaaw tàccu leen waaye. ci sama kaas. mbaa ma kaas wala ma toj. kaas far fes for. fuur cotise paa. njàcc paa. gëmm guux garab du neex ndoxum géej ak daqaar na ngay fañ bopp. <laughs> delsi nañu delsi nañu sànjoogu ci mhm. kattanu borom bi gannaaw ba nu baaloo nag ñëpp àq mhm. tey baal ñëpp nag di ñaan également sunu borom boole ñu baal ñun ñëpp ñu fekkee ko ay at yu bare bare bare bare dañuy nuyu soppeek am di jàmm yi nga xamante ni leeri jamono moo leen saf mhm. rawatina seen télévision wal fajri moo xam ci biir Sénégal la wala ci biti réew ñoom it ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax dañ koy wettalikoo euh, saa beneen aljuma beneen euh, yeneen i actualité sax la ñuy wax waaye toujours ci politique bi day daal di jaadu Euh, moo xam euh, dañ fi dalal dalal nañ fi. Mhm. waa réew mi ak waa APR. tàccu leen loolu waaye réew mi APR. mel ni eh te bi waaw sëñ bi amoo kii dimbali ñu ngir yàlla rek bul bul bul yàq kii bi. Iber. Iber kaay génne kii. yow yàlla man la géwalam Sadio. Eh, dimbali ñu dimbali ñu waxuñu fi dara ba nga naan géwalam. may ñu may ñu ba Iber kaay génne ko. may ñu may ñu rek may ñu may ñu ñu waxtaan. yow yoroo micro ba noppi bëgg a tëb tëb rek yuuxu. voilà bët mën a yem quand <laughs> ah balaa nga yuuxu kay nga yor micro. yow li kenn déggu ko. ah quand ah. saa ñu pour nag waxtaanee li ni mel ma dellu si waat ci actualité politique bi ak lépp li nga xamante ni moo fi jot a xew dañ ciy dalal euh, kii di major Bokar Sy major Bokar si nag membre hmm. convergence APR la waaye tamit responsable la foofu le ca biscuiterie moom la ñuy dalal. waaw major Bokar Sy tàccu leen ko. <laughs> Akkaan benn dëkk ñaari gaar lañu dem. Euh, fekk fa jigéen euh, ñu gën ko xam ci Ndeye Niang. Ndeye Niang nag moom nag moom mooy présidente commission féminine euh, jeunesse APR. jeunesse réew mi réew mi réew mi voilà APR <laughs> ngi réew maa ngi. waaw. Ndeye ñu am nag mbégte di leen dalal major Bokar si ñu ngi lay nuyu di la dalal. waaw maa leen di fay bët yi ginnaaw ginnaaw bi ñu jógee ci tabaski ji ñoo ngi ziyaar ñëpp di jéggulu ñëpp euh, di ñaan réew mi yàlla def ci jàmm euh, suñu suñu président monsieur Macky Sall yàlla na ko yàlla woyofal yen bi mu yenu nga xam ne askan bi rek moo ko ñor askan bi rek moo ko moom moo ko teree nelaw vraiment yàlla na ko yàlla woyofal ak alliés yi mu àndal yëpp vraiment ah euh, jërëjëf Betty jërëjëf Sanjogo, <laughs> jërëjëf euh, Major Bokar euh, yow it ci wuy si bi nday ñu ngi lay nuyu di la dalal borom Thiès. salaamaaleykum ginnaaw bu ma sant yàlla. junni ci yonant bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal sama ñaari wayjur yàlla ak mboolem jullit maa ngi balu ñëpp àq di di ñaan nañ ko fekke ay yu bari. te yàlla defal ñu jàmm te ñu rafetu fekkin te di ñaan yàlla aussi li ci julli di jot a jooy di tab tabaski bii bu metti la mm. eh, bu déwénee yàlla bu mu mel noonu ah. yàlla na oyof ci li ma doon jot a seetaan ci tele bi nit ñi di ko wax mm-hmm. eh, bu déwénee yàlla na oyof ci ñëpp ñu mm. mu diisoon ci ñoom yàlla na oyof ci ñoom di ñaan yàlla aussi mm. eh, sama président Idrissa Seck yàlla na ko yàlla may kàttan ak doole yàlla na ko yalla may carton ak doole jappale ko aussi ci bi mu am aussi ci senegal gep mébét bi mu am ci rewum senegal yalla na ko yalla jappale ba mu eggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin allahumma amin defena ni nuyu di la nuyu beti di nuyu sa njoogu di len balu ak di contane ci invitation bu bu baax d'accord yoy di ñu lay jaajëfal ci wuy bi ndax euh, Dakar ba Thiès nag sori na euh, voilà nga xëy oralu ni nga ni ko loo <laughs> ko wax da xaw ma daa oral xaw ma. waaw dañuy soobu ci waxtaan bi. saa ñu ci waxtaan bi. waaw Major Bokar si yow biscuiterie nga féete. waaw biscuiterie laa féete. Hmm, di fa jàppale eh, président Macky Sall maanaam partem APR. effectivement hmm. fa la ñu fa la ñu nekk fa la basé wu. Eh, Major si woo. waaw loolu xamula kenn xamula waaw mais <laughs> man day xaw ma la saa yoo xam nga ko. kenn xamu man moom xaw ma ko. waaw kon mais mais d' accord. non bàyyil bàyyil. mais lu waral loolu. mais mais xam ngeen ma tey. ah he he Mazor kenn xamu mais xam ngeen ma tey saa. ah non non ah, nga ah, xam nga kenn xamu xam nga lan mooy wax ji. waaw Sandiogou. gis nga euh, dafa am na ñoo xam ne dañuy euh, dañuy toog di def bokk de bruit. Eh. Et te liggéeyuñu. liggéey waaw euh, soo xoolee tey euh, euh, parti bi fi kii bi fi jógee nu mu gouvernement bi fi jógee lu ci lu ci bëri loolu moo leen moo ñu daanu parce que toujours dañ doon ñew naan góor gi lepp baxna lepp baxna mais ñun ñu ngi ci suñu gox. liggéey liggéey bu am solo di fa mëne ay action sociale man mi fa man mi fa nekk nii sama boîte laa yor boîte privée mais terewul dama fay dama fay dama fay dama te li may def yëpp nag population bi laa ci jiital parce que man avant may soobu ci politique mboobu man maa ngi politique ci sama koñ parce que tey jii fu mel ne ñaari tali wax dëgg yàlla euh, boo ko xoolee statistiques yi da ngay gis ne ñaari tali euh, bëri na euh, population bi bëri nañu euh, ñi nga xamante ni bii seen loxo jotul seen ginnaaw bëri nañu te aussi da ngay gis ne te aussi nit ki lu muy liggéey ci lu nekk ci la mun a ci la mun a jàppale goxam. waaw mais man. Euh, ñàkk siiw gi dañ ciy taxawaat tuuti. Mhm. parce que man euh, bi ñu bi ñu bi ñu le maa ngi lay doog a gis. maa ngi lay mhm. doog a xam maa ngi doog a xam ni sax yi am na ko tudd Major a si. lan moo ko waraloon parce que Major man tur boobu ci armée laa ko daan dégg wala ci militaire yi wala da nga li nga doon def sa service militaire wala boog lan la lan moo tax ñu yéex laa xam ci politique bi parce que en général dañ daan gis militaire yi duñ doon politique. effectivement euh, laaj nga ma question bu ma neex. <laughs> vraiment te dama ci dama fier effectivement ñun euh, man soldat soldat. woon te bu ñëk ba ku nekk xam na ne soldaar du wu ci politique jusqu'à présent ça, soldat, du wu ci politique man namp ci ñu tagat ma ci yar ma ci ñun xamuñu nous xamuñu xulo xamuñu on nous tue on nous déshonore pas vous exécutez les ordres quoi ok mais tey bi nga xamante ni bi tey summi naa mbubu moomu. parce que man maa ngi woon bataillon santé fa laa nekkoon donc bi yàlla defee ma nekk fa ab diir daal di génn daal di ber sama daara bopp ndax loolu li ko waral toujours que man dama dama yàgg di dundee social. moo tax ma ñëw sóobu ci. langue politique mais bima xolé ci bima bima xolé langue politique man président de la république monsieur Macky Sall doy parce que gis na ay charisme yo xamné ci mom donc doy na ma te gis té xanaa ko xanaa kon yow temps wadd wadd nga doon man musu man musuma loo moom man musuma milité fenn su dul man duma transhumant duma dara musu da doon bëgg mu leer mais lu la réer ci wadd xool ko ci pour bëgg Macky foog nga bëggoon wadd mais béti c'est di wadd sans wadd comme xaya ni ñu ko waxee élection yi hmm. c'est euh, euh, élection yi gis nañ fi yi gis fi wadd ñu fal Macky euh, ñu fal président Macky Sall à 65 pour cent. yow lan moo la tax a dugg ci Macky lan. ay yan qualité nga gis ci maki loo ci gis benn. lu président bi mu doon. benn Macky. Hmm. Euh, président euh, président Macky Sall. eh Mazor naa ah. <laughs> président makisal benn. Hmm. ku am fula la ku xam fu mu jëm la. ku am fulla la mën a ñàngal la. foo ko teg fulla fulla ak ñàngal mën a ñàngal ak fulla bokkul non mais kii bi ñàngal bi ñu ngeen ko tuddee. dafa am fulla kanam gi rek. Ah? waaw ah, ñàngal bi nu ngeen ko tuddee. yow ku am fulla la ci ban boor. nga yàq parce que fi mu toll nii. te xam nga li tax non hmm. fan nga teg fulla bi. gis nga Sandiogou waaw. Euh, président de la république monsieur Macky Sall. Hmm. encore une fois. Hmm. nekkoon na. ak président Watt. waaw lu yàgg sax loolu kenn warante mm. mm-hmm. waaye am la mu doon bañ toujours loolu moo tax ñu génnee ko ci biir. mais mais bien sûr ku ne xam na loolu. ok Macky toog na beru xool dugg ci gox goxaan yi dugg ci àll bi fin fond fin fond Sénégal xam seeni coono. xam li ñuy daj. ba mu waree ay àndandoo mu dajale mu dajale yëpp mu dajale yëpp teg ko mu yoonu yokkute. yokk na <laughs> ah mi ngi yokk moom. mais mais. ministère yaa ngay yokk mais programme boobu. mais programme boobu ci la ko Sénégal yi fale. moom wax dëgg yàlla li nga wax moom yoonu yokk yokk tey boobu. <laughs> mais programme Sénégal yi fale programme boo xam ne yoonu wàññi tey de lañ bëgg ñun. yoonu wàññi. wàññi kii mais yoonu yokkute du nekkul ne day yokk dafa dafa ñëw pour yokk pour askan wi. eh Macky gëmatut yoonu yokkute xam nga boo seetee démb kii dafa wax lu am solo ci diineeg jamono muy. Euh, Mamadou Lamine Kayta ah Mamadou Lamine. parce que ñamu àndaloon tëgg programme yoonu yokkute. nga xam ni kii moo jiite woon coalition Macky mille 2012. deuxième personnalité ki ki toppoon ci kii muy euh, ABC. ak Mbaye Ndiaye ñooñu la àndaloon ñu tëgg yoonu yokkute ñooñu folli na leen léegi ñi mu indi. membre fondateur yi membre fondateur yi la bale léegi gëm gëmut gëmutut yoonu yokkute. non soo nee folli sa saa njóogu dafay dafay. dàq na leen ah lu tax non loolu dafay. ah Mbaye wàccul ah, nekk Mbaye wàccul ko joxuñu ko ñu folli ko ci gannaaw ba muy wër kaaba gi ci talaaf lañ ko wax. mais mais mais seetal loolu. mais loolu nag firndeel na ne ajam defe naa nangu. monsieur mais promotion là ban promotion. promotion Moi là. Je l'ai na intérieur def la ministre d'état sa portefeuille nga promotion. waaw mais promotion là parce que qu'est-ce nga. promotion quest euh, nga. que maintenant ñaanuma la promotion boobu. gis nga. waaw tey jii soo xoolee. Hmm. à part le premier ministre. waaw ci ministre yëpp. mais Mbaye Ndiaye si ëpp doole. ni mais ministre d'état amul. li la seul ministre d'état mais non promotion là. waaw mais mais mais xam nga même bu fekkee ni promotion la intérieur lañ ko hmm. comme li saa wax rek. ministère boo xamante ni am na portefeuille mais ministre d' état bien que am nga titre ministre mais nag wax dëgg yàlla euh, looy gérer dara euh, gis nga bëti ma xam la benn affaire waaw gis nga euh, président Macky Sall moom la askan wi fal mu yore prérogatif yëpp loolu kenn werantewu ko mm-hmm. mu yoo yoon may ko mu fal ku ko neex waaw yoon may ko mu dindi ku ko neex waaw kii di monsieur mbay Ndiaye kii di monsieur Aline Barra gis nga nit ñi ñoo xamul rek hmm. gis nga kook ñooñu nga may tuddal noonu waa PDS yooyu noonu seen jël bi ñu leen daan dañoo miir ba léegi. xëy na jël jël bu àndandoo la jël ah, jël bu àndandoo la jël jël bu àndandoo la jël jël bu àndandoo la doo wax jàmm. waay bay ah mais mais ñoom. ñan lu ko naacaal ah? jël bi ñu leen jël. ñan bon écoute. waaw gis nga Mbaye Ndiaye. Hmm. Euh, monsieur Mbaye Ndiaye. Hmm. ak monsieur Alioune Badara Cissé. Hmm. ku yabus nit ñi tey seen diggante ak président. Alioune Badara Cissé nee na bëggatul xanaa lii roo presse digganteem ak président neexatul woon. waaw loolu ñëpp xam nañu ko. li mu wax leer na nee na bëggatul benn poste. non loolu Macky Sall dem ak nguuram loolu la wax tey ci presse bi wala liiroo loolu loolu yow yaa ko liir man eh, liiraguma wax na ko tey ci presse bi man gisaguma ko <laughs> man gisaguma ko ba yaa kon li gisaguma ko <laughs> te te aussi te uh-huh. tey euh, bu yoree euh, nit tey ko càmbar jàpp set du dëgg ah. tey moom euh, mun na kii ma teg fii am na feneen foo xam ne foofu la ma gën a mun a foofu la ma gën a mun a dimbale parce que aussi nit ki du càggante ni bi rek soo liggéeyul ci gouvernement bi rek. premier ministre waxul loolu de. Ah, nekkul euh, kii la nekk euh, da nga da da nga xuloo ko kii euh, kii président. Ah, ah, d'accord nee nañ dañuy dëkkalu xuloo seen diggante neexatul. ABC tukkuñu fi bañ man loolu nit ñi ñoo koy. li li wax sëñ bi bu leen nit ñi lay wax rek. boo xamul ci parti bi dara da ngay xamoo ci dara. bu leen nit ñi. waaw déglu ma. moo maître Alioune Badara Cissé diggante maître Alioune Badara Cissé ak président Macky Sall a rien entre eux. dara nekkul seen diggante. yow boo koy wax léegi nga xuloo ñoom weer waa ngi nii nga gisuma ko. mais dara nekku ci. waaw lii rek kenn mënu ci dara lii tabaski di am ak ñaari korte. parce que genre yu mel nii. dara nekku ci ñooy gis weer bi ne non lii du weer. dara nekku ci. say dara nekku ci. dara nekku ma Macky Sall nee na day def. yow yow yow yaa leen mais Macky Sall néna day dem te du ko taagu. yow Macky Sall kañ la ko yow Macky Sall buma xelo ko ko déggee soo eh ñepp xam nañ ni. ah ma ngi so comprendre am ko lu mu def ha ah? waji dafa indi ay ki pour buñu ñu muy ñu buryee ñu loolu mo do tax a parce que xam nga ni euh, dugg nga ci ngouta ah? ya ngi rek nga bëgg ñu nak buryee mo tax sa gaay gi gis xol xamu ñu fu ñuy tëggee fu ñu jut fi ñu tëggee lan moo et puis man sa lima, ci lima, lima, gëna naxari moy waaw. xam nga du mbay njaay rek la wàcce du ABC rek lañu ñu wàcce ay ñoom Ali Koto ak Ibrahima Sall Ibrahima Sall bi jiite woon Macky 2012 waaw mais gis nga mais mais mais gis nga xam am nga a a. non xam nga ñoom. amatul fu xam nga ñoom ay soxna lañu. dégg dañ leen di war teral di leen di leen sargal Adja Betty waaw Adja Betty eh, eh, eh, encore une fois Adja Betty waaw kañ amin waay ok mooy li ma la wax léegi rek hmm. parce que tey jii euh, euh, di nga takk kañ parce que xamul looy wax président de la république tey moom moo yore suñu gouvernement ku ci nekk xam nga xam nga kenn nii mag yi moom la sénégalais yi fal. effectivement moom la ñu teg ci bopp réew mi. Hmm. moom moo am doole dooley fal wala folli. Hmm. mais folli wala ngay def réaménagement ci sa gouvernement day fekk loo xam ni teg nga ko fenn. waaw. mais fan la ko teg. dabb daaxe dana def dabb daaxe nga réaménagé. coppet ci biir ci mais lan la dañoo tële. Mbaye Ndiaye. ci nit ñi ñu ne lan. nee nañ cantaakun yee tax ñu wàcc cantaakun yee ko tëbal ah. Mbaye Ndiaye moom waaw kii nee nañ bu jaaja dañ ko yuuxoo ca Makka ak yeneen ak yeneen tëbal ko mais yooyu yooyu du ay raison yoo xamante ne dafa dafa dafa dafa fondé du ay raison yu dëgër non loolu moom non loolu moom hmm. loolu ay wax yu ñuy wax la rek mais loolu ah, yow tamit xanaa lépp ay wax yu ñuy wax la rek waaye tamit ce qui est sûr mooy que hmm. parce que xam la la diggante euh, diggante euh, Maître Alioune Badara ak euh, monsieur Mbaye Ndiaye ak président Macky Sall ñoom seen ànd du tey. ñoom ñoom ñoom ñoom. bi dakk na tey ñoom du nguur moo taxoon ñu ànd. du poste moo taxoon ñu ànd. lan moo taxoon ñu ànd. donc sincérité ak fidélité. te ci la ñu nekk ba léegi. ban sincérité ak fidélité yow tamit. mais sincérité ak fidélité parce que lii nga ne ko sincérité ak man man yow la njabootu man la man la président président kii euh, euh, Macky Sall bi ñu koy bi ñu koy dàq assemblée. Hmm. mais ñoom ñoom ñoom rek ñoo. am fipu fipu lolo waral tax nag Macky fàttaliku loolu. mais ba léegi nga sa bopp dugg ci kàmb gi mais tay yaa ko war sa bopp yaa ko mais tay jii mais mais laissons le temps juger. waa ji wax na mais ku len wax ne suba tay maître an Bara Cissé. bétti waa ji wax na kàmb moom amul fu ko Macky war pour pour mu mun ko fa mais Alioune Bara Cissé bugul maki na dama nguuram loolu kañ la ko Alioune Badara Cissé. waaye wax nako ah! tay ci presse bi nak seigne bi nak yow it nag xanaa nag lire presse bi. way man ni loolu mom man mom luma ma. Alioune Badara na bëggul. neena ah, loolu nee Macky Sall lu mu yor nguuram bëggul. la dem loolu yow yaa ma wax. maa la ko wax yaa ma ko wax. mais mais mais dégg ma ko gisuma. saa mu may ni ñu kon sa parti man maa la ci informer man loolu mom ya mako wax mais loolu mom dégguma ko gisuma ko ngay tay yi jii la ko wax. tay la ko man man ko dégguma ko. merci ah. ñu jàll ci ndey ñay ndey yenit defe naa mburum pour hmm, voilà mi voilà ni entre et moi, c'est fini. Mingini. ah ma mingi journaux entre et moi c'est fini. mais man journal bind rek may ma may ma yow bu journal yi bindoon ne. mais gisoo la ministre léegi mais gisoo li ñu def a entretien bee lañ ko def la ñu maa fal bala ñu maa fal ministre. ah déglu ah. Hmm. dinañ ma dinañ ma dinañ ma ko. dinañ ma ko ma ko dinañ la consulter mais wax la. xam nga euh, journal bii ko bind nii daf ko def entre guillemets. Mhm. ce qui veut dire que ne ay propos wu ABC moom la reprendre. Mhm. léegi yow ah, léegi nga ne liiroo ko gisoo ko gëmoo ko. ah, ah bu dee moo ko wax na nga ni bu dee ah, moo ah. wax. bu nekkee de moo ko wax. waaw mais kooku moom mais kooku moom la moom kooku moom la kii. moom la kii moom la engagé. <laughs> mais ce qui est sûr mooy. ce qui est mooy lii moom. lii moom tey na sama xel Sénégal sax xel nag yow lu ko tey dafa yomb. nga fay déglu ma. lekkil mango mango mango bu beer. gis mm. fii ñaata yoon. Mm. mais mais du fii la ñu ñëw fii la benn presse ñëw bind ne Yaya Jammeh attaqué nañu ko nangam sangam aéroport baa ngay ci moom daw na dem na fële te yooyu yëpp France ak ay yeneen ak yeneen ak yeneen. ah mais man gëmuma ko. gëmuma ko ko. d'accord xam naa ne gëmoo ko waaye bés bu taxawee moom waxal ko boppam léegi dañuy dellu ci ci ndey waxoon naa ko sànq inde yi fépp la suuse yéen mm-hmm. tamit am na ñoo xamante ni gis nañ leen sànjogu ci fan yi mm-hmm. ñu génn nii euh, euh, Macky Sall dafay utiliser sa Seck seen ànd Idi gañewu ci dara rapporteelu ko dara yéen la woon yéen yéen waa Thiès yi jeune Thiès yi yéen a ko waxoon leen naqari ah ci foofu moom béti mm. euh, li ma fay tontu ce sera très simple mm-hmm. parce que Idrissa Seck benn jeune bu bootu ci moom muy sa kilifa ku ne xam na ni Idrissa Seck di doxe Idrissa Seck lépp lu muy def ci yoon la koy teg ku teey la ku dal la ku xam fi muy teg tànkam la kuy sàmm kàddoom la tamit kon yaakaar naa ni bépp jeune bu mu boot ngay jeunam dëggu nekk ci ginnaawam ànd ak moom muy ñun ñii tey di jeunesse am gisuma kenn kuy taxaw di diingat Idrissa Seck ci jëfam wala doxalinam entre moom ak Macky wala moom Ramatoulaye Sarr Thiès am na ñu mu fi jël de ci tele bi. waaw ñooñu ko ci loolu laa jëm ak yow. loolu bu ko diingat de. Euh, ñun de lu ne fang kenn du ko jeex. yow it boo bañ dugal la ci guute gi waa euh, hmm. lu ne kenn du ko jeex waaye kon loolu neewul fang. Ah. parce que jeune Idrissa Seck yi nga xam ne ay jeune réew mi dëgg lañu. Hmm. dara animé wu leen. Mm. jóguñu ngir xaalis. utiliser wuñu parti wala turu parti pour régler seeni problème ñëwuñu taxaw benn yoon ni Idrissa Seck ki da koy utiliser parce que Idrissa Seck du ku ñuy utiliser. ku xam la. dama lay wax ni la may ma may ma xam. Idrissa Seck dëgg xam ne béti. waaw Idrissa Seck du ku ñuy utiliser. parce que Idrissa Seck responsable la. ta maki xamna kan moy Idrissa sek kon je pense que maki mënul utiliser Idrissa sek kon ñi génnoon wax ñan la. ñi génnoon wax. waaw ay jeune la yo xamne ci sama xalaat. Hmm. ànduñu ak Idrissa sek <laughs> yow ya bëgg lu yomb. ay jeune la yo xamne ñen ñi sax ay waa APR lañ. <laughs> Ah, waaw si. ba pare di mbubboo rew amna fa. parce que man waaw bima gisé affaire bi la xam ñi amna ci ño xam wa APR lañ. parce que am na ñoo xam ne man xam naa leen bu baax. ah léegi waa APR ñooy sol bu réew am na fi ñoo xam ne tamit dañu ànd ak ñoom. pour dem lañ la dañuy sol. xam ma nag. dëkk bu nekk rek ak la fa xew. <laughs> te ku dëkk nit xam nga réalité yi. <laughs> jeunesse boobu jóg bu jeunesse su Idrissa Seck. non mais defal ndànk xoolal kii li muy euh, wax nii kii li muy wax nii c'est grave xoolal déglu ma Ramatoulaye Sarr euh, journaliste bu xereñ la. xam na xam na. ñu nga xam ni ñoo te Thiès la dëkk comme yow xam na ña nga xamante ni ñoo fa représenté ay waa Macky mu ñu ko woo di idi idilu loolu mënta ne information bi dafa jàll fii. ñu information boobu jàll. déglu ma bul jéem a lënd waaye ñun waa Thiès xam nañ ñu gis nañ ko xam nañ ni tamit. ñi ci nekk ña am na ñu ba léegi mu leen dénoncé ko weddi ko lu leen réagir leen ba loolu amee ngeen ne ñi ay waa kii la ku leen ne réagiruñ ci télé yi fii réagir nañ woote nañu point de presse wax dañ na ci assemblée générale wax nañ ci lu ngeen ci wax wax nañ ci leeral nañu affaire bi yëpp waxee nañ ni carrément que nit ñi topp ci ginnaaw Idrissa Seck defuñu ni lii ñii li leen animé xam nañ ko seen objectif ak seen bi yëpp xam nañ ko mais bu dee mairie Thiès la bu yeboo ñu dem nelaw mais waa Thiès saa. Ah. Euh, daf dañu mel ne dañu doyal ci Idi. non pare nañ ci moom. ah kooku bañ naa eh, ah, ah déglu question bi ba pare kooku dama koo bañ. Ah, yow yow fii la fi ay nit génn ni du mën a dégg. parce que nekkoon conseillère maire Thiès. nekkoon naa ko mais dama dégg naa bu Idi saqatee mu ne yaram kalaa kii du neex a wax. ah man duma conseillère damaa démissionné. ah maire Thiès est ce dee ci Idi yaa Idi dans le sang yow danga dee ci Idi waa defal ndànk nag ma wax la dëgg nag ku deewul ci Idy nooy def waa mais looy dee ci Idy da ngay ànd kuy dem. xam demul kay dem demul demul dama ne la Idy rek mooy dem cinquième président yéen dama lay xamal ni la. cinquième hmm. euh, président. ak pexeem yàlla ak ndogalam. dëgg la loolu moom. te tamit nag kenn du jël lu dul sa wërsëg. waaye ab borom bu egsee borom jël la mu war a jëriñ. waaye xam nga lan moo problème ab sama ñëwagul. Ah, saa xam nga Idy man dama ni li ko li ko li ko eh, li ko yàqal xam nga lal la. mel ni te yéen xam naa ni yéen fekkew ma leen fa ngeen di waxtaanee mais hmm. war ngeen ko ko wax. Hmm. Idy la ko yàqal mooy Idy dafa génn euh, PDS ñëpp. sénégalais yëpp bëgg ko ndax xam nga sénégalais bëggul injustice Macky mën nañ ni looloo ko fal looloo ko fal ndeysaan ji idi guddi ay visite nocturne guddi muy andi xam nga idi dafa <laughs> mais loolu aussi yéen reconnaître leen lu lu lu wàññi kotu idi ci sénégalais yi loolu foofu béti eh, may ma loolu du ma ko d'accord ak yow peut-être benn côté hmm. euh, Idrissa Seck ñi ko xam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg Idrissa Seck bañ koy génne PDS déglu nga discours am kaset yaa ngi fi mën ngeen ko ah, teg dane carrément PDS mooy famille naturelle am loolu wax na ko dañ ko ci génne génn ci dañ koo génne par la force mu yo mu yëkkati dana na dana ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bagn ko jele makka da dem Medine ba mu demee Medine ba am doole ba mu dellu waté makka moy bour ba tay ji moy bouru makka ba seet parce que mom la ñepp di def seeti ejak. ga yonent ba ba ba ba muy ñëw boo ko jëlee gaay waaye idi bi muy ñëw ba ngay nekk ci yoon bi ba gaaw gaay saa may ma ba ma yeggale c'est exemple boobu dama lay leeral que Idrissa Seck génnewul boppam PDS dañ ko génne Idrissa Seck delloowul boppam PDS parce que PDS dafa liggéey am fa. am fa wàll am fa cër. te dañ moom la fa amoon base boo liggéey am fa cër partem boobu am na fa cër ba léegi parce que am na ay militants PDS yoo xam ne ñu ngi woon ci biir PDS mais Idrissa lañ doon noyyee. ah bon waaw. bari na fa ñu nekkoon biir présidence te Idrissa lañ doon noyyee. Ah, ah du ma la limal kenn lu tax nag du ma la limal kenn parce que man xam naa ci dara ñun xamuñu ci dara parce que Idrissa Seck PDS famille am la génn boobu mu génnoon tamit ñoo ko génne delloosi bi aussi hmm. ay cadre PDS a ko delloosi hmm. parce que ñoo xool ba xam ne seen parti ba Idrissa Seck génne lu ngeen ci gis PDS pëccaxoo am génération du concret fii lenen fi mouvement de soutien yi fi dem ba ken xametul ndax parti la wala ay mouvement de soutien la wala génération du concret mouvement de soutien la wala parti te loolu yep gennu Idrissa ko waral su fa Idrissa nekkon yoy yep du fa am ah idée boum di boum parce que Idrissa idée di buum Idrissa du boum di boum mais Idrissa nitu deug la hmm. te dafa nekk nit ko xam dafa am objectif ci lu muy def am gem gem deuguna dëggu na fu muy tek tankam te ab Ablaye Wade lu ko gën a yàqal tey. Hmm. teg ko tey defetam bu ñaaw bii. séddali ko ak Idrissa sekk ci la bokk. Ah, lan la war bu mu war Idrissa Seck dem seen tàqalikoo boobu. lu ko gën a yàqal tey loolu ci la. loolu ci la lu ko gën a yàqal tey. Eh. ndax lan Idrissa bu àndoon ak Ablaye Wade. teg ñu liggéey nañu commencé woon di liggéey ak Macky ñëpp équipe la ñu woon ñu delloo ginnaaw balaa ñu doon egg fenn fi soxna si kon tey Idrissa Seck Abdoulaye Wade tey buy dem dem bu rafet lay def kii ginnaaw la ñuy ma ñu delloo leen ginnaaw jóge na fi Idrissa Seck ni ngi politique ba tey ñun li ñu intéressé mooy entre Idrissa Seck ni muy politiquee nii yaa ngi dégg bu ñu reculer loo Idrissa Seck daf doon wax ne quatrième président mais liggéeyut lu ko fal lool la ñaanoon yàlla ah dinaa la wax nag tey li tax. ñaanu ko fay boobu. liggéey na lu ko fal sii. lan la li tax tey mu am résultat bi résultat bi may ma Cees rek la Idrissa li fa Cees rek la Idrissa li la Idrissa dama la xool eh, la rek moo liggéey na xamal na mu liggéey Cees ah. Idrissa lu ko yóbbu kaso lu ko yóbbu kaso ju. Ah, les ah. chantiers de Thiès moo ko yóbbu kaso. waaw alal jël alal les chantiers de Thiès moo ko yóbbu kaso. mooy alal te bu demee ba dugg kaso. c'est grâce à sa région naturelle. Hmm. natale moo tax mu dugg kaso. parce que nag Idrissa dëgg la état mooy liggéey mais état bu fekkonte ne liggéey boobu tey seen coobare dong la woon xëy na liggéey ba doonu woon am Thiès. Idrissa ci dugal loxoom jàpp ci ba ñu indi liggéey boobu Thiès sa da ko defoon dans toutes les régions du Sénégal. mais fan yi passé génn na ci presse bi ni Macky mënul. waaw waaw di nga ah, na Macky di nga waxul ni Macky ah, mënul ah, ba mu waxul ni Macky mënul attention dugg naa ñëpp a dégg Idrissa waxul ni Macky mënul Idrissa daf ne Macky dafa ko ñor may ma waaw Idrissa Seck ku mu mënti àndal hmm. askan wee ko ñor mais mais xas na Macky Idrissa Eh, coalition la ànd ak Macky àndul ak Macky coalition daf ko jàppale. yii koy Idrissa lu ko jox parte nañ dellu ci ginnaaw pare doog a ñëw foofu parce que dafa am fu ngeen ah. laal ba pare. avancé waat bàyyi point bi. Eh, da ngeen ni 4 ah, dem moom laay tëjee. non dina wuyu dinaa wuyu bii laay dem ba pare parce que Idrissa euh, dafa am lu ñuy tënk ñoom ñëpp leader yi dañ ni. Hmm. candidature Ablaye Wade du yoon. Hmm. dañ koy xeex parce que warul déposer candidature ah. warta nekk candidat Idrissa wax ko ñeneen wax ko hmm. Idrissa tënku ci kàddoom ñu ne du ñu dem campagne dañuy taxaw xeex loolu wane ni candidature Abdoulaye Wade du dëgg du yoon hmm. Idrissa sàmm kàddoom topp loolu mu waxoon moo tax mu daan xëy di dem ci place de l'Obélisque nañ ko waxee woon di nek ak ñom ba ngon ñu wat parce que ah, loolu la ñu sàkkoon indi da doon ñëw rek si ñàkk commissaire Adam dama lay wax dama lay may sa may ma ba ma eggale li ko loolu bari pourcentage tay ci loolu la jóge parce que fonk kaddom ak sam kaddom ak baña wor moo tax waay waaye gor la ta gor du wor kan moo war? man daal ñëw ma kii wor eh, war? ñëw ma kii kan Idrissa Seck mën a yow yaa ngi li mu waxoon. Masor doo wax ak booy sénégalais yëpp teg nañ seen bët. da koy seetaan muy wax Macky sénégalais yëpp teg nañ seen bët. Ah. yow yaa bëgg wax. ah kay yaa bëgg a ji tudd ma Macky doo ma ba léegi ma koy wax. yow nag xaw ma da nga ragal da ma. li ma lay xamal mooy sàmm kàddoom boobu moo ko jox pour boobu. Ah. Hmm. kan moo sàmmul kàddoom waaw léegi dama ni la Idrissa lan la def Thiès léegi nag. dama lay xamal ne la chantier de Thiès yooyu waaw ci la dama ne la mën a nekk quatrième dama ne la bëti mais la def bëti hmm. Thiès ku ko xamoon démb xam ko bërki démb hmm. Thiès bañ ko defaree 2004 am na man sama benn mbokk bu jógee jóge Mauritanie 2005 ñu wàcce ko place de France mu ne fii du moom da ngeen a juum nekkuma Thiès uh-huh. gëlëm lu tax mu gërëm parce bërëb ba moo sa benn mbokk sa benn bërëb ba moo loolu nan lañ ko mën a vérifier yéen yéen yéen ma lay xamal la tey dugg si entrée tey booy dugg si Thiès dugg si Thiès xam nga ne entrée Thiès changé lu bari changé mooy pato boobu ñoom idi def tali yeeg lépp a fu la neex jaar génn dem Tiwaawan kenn dematul gàmmu am embouteillage mais reconnaître kenn dematul màggal euh, ñamit yooyu mu doon def ci paa moom dugg boobu mu doon def mais loolu moo wàññi idi nangu leen loolu mais nay génn bëccëg sax ah, dem cappit ñamit du ko def ah, ah, parce que nag eh. wuyu bu mu doon wuyu paabeet lu leer nañ ñi la heure buy dem day ne waa partem waa partem ni ko doy loo nañ la mm. loo def ñoo ci ànd moo tax mu ko doon def mm. eh. waaye looloo tax loolu dañ ko daan wax ñoo la doyloo ñoo parce que nit kenn du ko jiital di ko fakkat mais loolu doy nga ñu nag loolu dañu lay bàyyi loo def noonu la waaw xoolal déglu ñu doo jóge Thiès ëpp ñu coow Idrissa Seck Ablaye Wade da koo nax yaa ngi dégg di ko parce que Idrissa Seck ku représenté woon dara la. dara la amoon na doole ba léegi mais Ablaye Wade xam nga la moo ko. tey la gën a représenté dara représenté tout dara 7 pour cent la ko gën a représenté tey la ko gën a représenté. dama ni 7 pour cent Idrissa yow buñ la nee Thiès Idrissa Seck amu fa dara sax waroo ko gëm. waxuñu loolu Thiès dong ngeen am parti régional ngeen. fépp la ñu am nag. parce que Idrissa Seck bu génnoon campagne. tey ni Macky génne teel a dem campagne Idrissa bu ko demoon campagne battre ñëpp. waaw ah. euh, day battre sax Ablaye Wade waxuma la ak nag. kon mooy génn tey deuxième battre Ablaye Wade premier lay génn. Idrissa Seck et puis léegi politique day waaraate mel ni oustaz. Idrissa Seck waaraate wul dama ne la. maa ngi leen di. yow yaa gën a xam ne ara ayta. mais dañ koo yar. waaye Saïd koo yar. ko koy ji. Idrissa dañ koo yar. waaw te yar bu am solo la am. ah muy yar la bu yëkkatee kàddoom yow boo doon dox dara dégg kàddu Idrissa Seck teg ngay tax taxaw déglu ko. ku naan teg. lu ci leader la. ci ñi ko gëm ku naan teg. yéen a koy déglu ñun déglu Sénégalais yëpp. gis ku la ni. man de du ma ko déglu man moom mais bu dee wax. faaw ma déglu ko parce que man waxam moo ma intéressé. waxu gan parce que day koo xam ne du wax wax ju ñuy sànni. idi lu mu wax rek am na importance te xam na fi mu koy teg. idi ah, ay lépp ay lépp lay ñëw. di rencontré boo seetee waxam ay sama maam nee ma ndax pas-pas bi wér la. maa ko pas-pas bi wér na. yar bi la. ndax daa am yar rek non Idia. waxam yëpp ay léeb la ay maye. leader bu am yar la de. <laughs> yéen seen nu ko Idrissa Seck mayekat la. Idrissa leader bu am yar la bu am teggin. dinañ ko invité grand ah. théâtre mu ñëw maye bu nag. bu boobaa ngeen doyal. parce que bi ngeen gis doy naa yow eh, yow Macky bu mag ah, wax waxuma ko. ci mag ya ko wax kan de ba ci barki dem ba ci réaménagement ya, ya. bi rek nit ñangi naan war wa warati na non eh, notre frère secrétaire général comme <laughs> ça ci waxe di yëngal tanki dafa dul kenn ki bopam la fi nekkal sore na trop ak wor ndax mom biñ ko biñ ko dàqee assemblée yow kan nga commencé nga and ak Macky ba pare kii barki dem nga ànd la non man parce que Bokar mi yow kii xamulul Macky dara yow sa yow bi ñu wax yow dafa génn kan Maki, Maki, Macky euh, hmm. la la premier tour battre campagne à président Macky Sall deuxième tour la même chose à maître ah, au passage gis nga. waaw euh, waxal ci wor bi gis nga gis nga gis nga Macky dafa sore sax kuy wor. ah bon. yow tamit loo ko xamal. non non déglu ma président Macky Sall. yow dañ ko dàq. boo ko gisee télé nga ko gis. président <laughs> waaw d'accord <laughs> président Macky Sall dañ ko dañ ko dàq assemblée. Euh. mu taxaw génn def sortie. Euh. dàq nañ ma pare naa ak Ablaye Wade su ma oowee. tour de négociation sama diggante ak Ablaye Wade. mu yamale ko fa. ah ya ngi idi donc donc bi à abé nous mu daal di gëm gëm la ah. di ko suba suba mu ci seen place mu partem euh, partem et puis li gëna a parti boo xam ne deful sax juróomi at ñaari at nga kii nga kii accéder au kii pouvoir. daa fa xastaru rek. moo tax pare moom gëmeewu ko sax moo tax xamul fu muy taxaw. <laughs> déglu na ko moo tax pareegut. dégg nga dégg nga de ndaw si da koy cabaxal yu bon bon. femme bi. ndax ndax yow tey ndax doo déglu femme bi tey jii. Sénégal waaw Sénégal ñëpp ne ñëpp ñëpp ñëpp d'accord ci d'accord nañu ci ne Ablaye Wade waratu la gouverner.

mais jarul ñuy xeex jarul ñuy xuloo jarul ñuy wàcc ci mbedd mi di xeex xuloo nañ ko ko nañ ko nañ ko parce que tamit président Macky Sall dafa dafa déposer caution pour nekk président de la république. Mmh. dañ ko war a battre ci urne yi nit ñi ñooy juger que ne yow baaxatuloo demal. xam nga ñun d'accord nañ ni sénégalais yi. Sénégalais yi ñun amuñu jotu toog di xeex ñun amuñu jotu nekk fii di xeex di sànnante ay lacrymogène parce que réew mi dafa eh. dafa yàqu yàqu. Eh, boo yéen nag ñemewu leen lacrymogène parce que <laughs> dawoon ngeen fi Macky dawoon na fi ba dugg ci kër googu Colobane. <laughs> ba mu jógee Youssou Touré ne ñoom ñëpp a ndaw Youssou Touré ko taxaw daal ne ñoom ñëpp a ndaw. Macky dugg ci kër gi naan ñu ngi fi si parce que est ce que dugg ci rôle lal ya sax affaire yi wóor léegi président la wóor non daw ñu dellu si ci yokkute xam nga Macky dañ ñëwoon ah, dafa ni Macky eh, eh, Macky dem dafa jalaare ju rek aba buy fa waxet bu wablay wadd bi ci Macky lañ ko gis ah, parce que dañu oh. woon gouvernement am du dépasser 25 25 ministres tay ci ci ñaata 30 waaw aja bi ci loolu dinaa ci sawara tontu trop ah di nga ci tontu kay ay li boo ci tontoo ñu jógal ñibbi gis nga gis nga. yow kii dalay lay peeg naan la Adja <laughs> gis nga taayu kii bi gouvernement bi. Mm. tey boo xoolee. Euh, trente euh, trente ministres. trente ministres. ministre des inondations kooku dem doom ji xiin lay wër. papa nu ñuy def ba mu xiin. doom ñaanal yàlla rek mu xiin. <laughs> égaleel dawal. bon mais pourquoi. Euh. mais. ni ngeen tuddee wax waxet non wax waxee la wax waxee la promesse électorale su fekkee di battre campagne di toog taxaw ak askan wi ni bu ngeen ma falee sama gouvernement du dépassé vingt cinq mille même su fekkee bu ndee ba ca digg moom mu def trente loolu dinañ ci taxaw seet même su waxee wax waxet te wax waxet boobu jëmale euh, wax wax waxet boobu jëm ci lu baax ah, ah, ah. mais wax waxet boobu lu baax la ah wax waxet Ablaye Wade jëmul woon ci lu baax mais tey non jëmul ci lu baax maa ko waxoon waxee non xamal ma la parce que tey jii euh, taayu gouvernement bi hmm. Euh, soo ko kii euh, euh, soo ko dee soo ko dee xool. <laughs> waaye nag buy wax lu leen dama day dër. man seetlu naa ko. <laughs> dëru woo. <laughs> waaw d'accord sax nga ne taay gouvernement bi. parce que gis nga tey xoolal tey président. yaa ngi fi taay gouvernement président Macky Sall bi ñu ko fale mais mandat sept ans moo ko fal. waaye dafa ne buñ ko oh. falee loolu tamit ba ci promesse non demuma mais dafa ñëw réduire mandaam à 5 ans parce que moo ko waxoon sénégalais yi leen ko digoon moo moo promettre wax waxet ah bii de wax na waxet yaa ngi dégg bii de wax na waxet tey tey ji imaginel tey gouvernement bi euh, 30 euh, 30 ministres 30 ministres bu bu waroon dem 7 ans moom réduire gouvernement bi euh, moom réduire à 5 ans

gis nga xoolal. Macky bu 7 milliards fonds taïwanais yi naa ngi. fan la dugg Idrissa Seck ko laajoon Idrissa Seck na ko fi rek. waaw waaw. te nit ñaa ngi koy ruum ruumee. te na leer. ah mani bari na xaalis la. président mani mani président euh, président Macky Sall ba ñu waxee ci fonds taïwanais yi. waaw dafa ne carrément je suis ku ma woo ma ñëw wuyu. du wuyu du wuyu. boobu nekk wul au pouvoir. moom wàddu yónni ko mu dem jëli ko ah. xaw ma xaw ma Michel la xaw ma. jël ñu bàccoo ko bii bukki bii njur bii ah! sàmba waaye yow yow bàyyi ma waaye Michel Goda waaw Michel Goda ah, ah! yow yow kooku kay xanaa na la eh, wóor ko ma ne loolu la wóor na ko <laughs> man la leerul ba léegi man la président man la président hmm. taxaw na fii ne sept milliards yooyu hmm. pare naa guddi muy bëccëg hmm. bu ñu ma woowee ma ñëw wuyu waaw lu tax waawuñu ko. mu lu muy wax lan lay wax lan lay wax. mais dañ ko loo xam dañ ko yónni mu jëli wax ah, mu yónni mu jëli suñ ko woon wax. <laughs> Ah, ma sa laal la wàdd. Ah? du ma sa laal wàdd. tu vois non xam nga lan la tey euh. président Wade aussi tamit euh, nañ ko ko loolu nañ ko kii nangul. taxaw na fii ni sama premier ministre yëpp vraiment président Macky Sall mi tey. amu ci dara. non boobu fekk naa boobu fekk na xuloo naa Idi bëgg naa tagg Macky yooyu dong la nit ki maam la. mani. Ah. leen ko leen mani baax benn yoon la. waaw waaw. baax kenn du jéem. ci deret la. ci deret la. yow sax yow sa APR xam naa ni dëgërul. xam nga lu mu naan. ba tey nee mbuur la jëm mbuur. mbuur waaw nee na daf koy dem implanté eh. yow mënoo wax sa géwél judd bi mu dimbali la loolu dafa kontaan rek xanaa dafa kontaan dafa kontaan dafa bëgg rek. yow sa biscuiterie yi dëgërul. waaw mbuur la jëm. mbuur la jëm xam nga lu muy xëccu meeri mbuur. yow meeri mbuur waaw waaw yow kenn xamula mbuur yow biscuiterie yi gii nga ne kenn xamula fa li ma lay digal mooy bu ci duggu bu ci dugg bàyyil dama ciy tax. conseil ndam eh. ndax man mbuur laa juddoo fa laa yaroo fa laa màggee fa nga waroon nag dem njëkkoon njëkk yëkkati ay mbirum politique moo gën nga toog biscuiterie gi ba ci ah. euh, dakar hmm. teranga moomu fi indi mais tay ba nga xamanteni bi jóg di mëne ay action sociale ma ni mbuur gi ma juddoo mbuur ma fa magge fa jang fa école joge fa dem Dakar Bango nguur googu tay amel tay munuma tay suma dundé suma dundé ba dé té defuma dara pour man duma góor te duma doomu. mais yow yow yow yow doomu buur nga. mais nan nga fi toll sax. dëgg ma bëti ah. moo tax bëti xaadim la fay fekk bàyyi ko. kii day daka saale dëgg ma moo tax farankulaay bàyyi ko. ma ni waaw ma ni moo tax ma dëkk gis mbuur hmm. depuis temps ba Diop. Hmm. mbuur changé wu. ah loolu mooy maire bu nekk mais dëgg la. waa PS fa ne. mais Mour va très mal. Hadim naka la tudd. xaadim Hadim la. xaadim kon. mais mais liggéeyul dara. ah ah ah. ah. yaa ngi gis nga bi may mënee samay action sociale. Ah. Mbour laa njëkk a dem. organiser vos consultations gratuites. sur n'importe quoi. Euh, parce que tamit ñoom il faut que ma delloo leen loolu yomb na jënd say dix seringue ne consultation sa biir gratuite ku ñëw nga pikiir ko mu mais ba tey loolu daara loolu ba ma koy def te loolu ba ma koy def hmm. duggaguma woon sax ci politique parce que xam naa ne parce que boobu tey maa ngi tey nekkatuma sous les hmm. maa ngi mën a samay activité bopp bala may def dara dinaa dem suma fief def ko fa. waaw léegi man dama lay laaj. fii tamit Dakar ma ko fii def yow ban dayoo nga am. wala yow APR a nekk ci nguur gi rek war ngaa xëcc maire mbuur war nañ la koo jox. loolu la de mais ah? loolu la mais APR a nekk ban dayoo nga am Mbour. Mbour li ma la mën nga dëkk mbuur te waa Mbour duñ la bëgg. bëgguñu la bëgguñu la parce que la xam. ma ni Mbour bëgguñu ko sax. Mbour man waaye ah. xam naa ko mbuur <laughs> tey Mbour tey mbuur tey bëgguma tudd fii ma tey. <laughs> tu vois te tey jii. ñu ngi gis mais amul tur mais yaay ah, mais fi mu am na ay waa hmm? buur yu fi toog. kon sa yaay moo la <laughs> jàppale. turu yaay moo la ñara. non ndaw si fit mel ni ku nekk mbuur. non ah. non dama lay ne la. Ah. mbuur hmm. mbuur kenn gënuma faa dëkk. te tey jii. <laughs> waaw da ngaa tuxu waaye da ngaa tuxu te tey jii te tey jii naa yàlla tey bu ma faatoo. waaw eh, tey ñu suul la nguur tey ñu delloo ma tey ñu delloo ma nguur. nguur la ñuy suul. maa la wax lii. lii yëpp beeb la rek xaatu. Eh. xeetu la meep meep meep meep. Ah. dégg nga bu ma faatoo ñu suul ma nguur. waaw xoolal muy faatu lay bindaale ci man taalibe Cheikh la. nañ ma denc. nañ ma denc saa yi. voilà léegi saa dañ daf ñuy may rek euh, ñu jàll service commercial. voilà dem dikk du ko yàq. plus de 16 Sans Convoyer de l'argent doit être aussi facile que de passer un coup de fil. C'est pourquoi nous vous proposons aujourd'hui un moyen de transfert sûr, rapide et très économique depuis votre mobile Orange. Avec Orange Money, transférez de l'argent en toute simplicité à vos proches. Rendez-vous chez un distributeur agréé Orange Money ou dans une agence Orange ou composez sur votre mobile dièse 144 dièse avec Orange Monnaie, les tarifs baissent. Transférer de l'argent à partir de 250 francs. Le transfert d'argent change avec Orange. La vie change avec Orange. voilà retour dans votre émission ataaya béti defe naa ni euh, leer na euh, sawaay euh, ku neex la naan bu ñu suul ko mbuur ndekete biscuiterie yi boo demee daal la jëm voilà ñu ñëw ci sa ndaw si sunu ndaw si ah sa ndaw si sunu ndaw si nday ñang voilà nday nday nday gis nañ ni à politique bi yaa ci ay ay ay ay ASC te yow poste ci rek lañ lay def <laughs> non man man dama jommi Ndeye ba kees waaw ma dégg muy occupé aussi góor ñi ñoo ko doon occupé lan nan la fa demee yow da nga di yëngu ci ASC wala lan ba wàcc ci politique bi wala. waaw dama yàgg di yëngu ci mouvement associatif yi. Hmm. dëgg yàlla parce que. Ah, sama mouvement associatif yi. waaw parce que sama koñ sama ASC ASC étoile filante la tudd mais vraiment. Hmm. dama ci yàgg maa jiite woon commission féminine bi maa ko jiite jusqu'à présent hmm. waaw. nekk ci nag di ci yëngu ba ñoom ñu mandaté ñu jël ay délégué en général góor ñi lañ daan def délégué zone ci mouvement navétane ñoo daan dem mais ñu xool ba xam ne man peut-être li may liggéey mën naa dem daal fii góor ñi di dem xeexali leen fa li ñu soxla ñoom it ñu màndaate ñaari góor. ah da nga pànk ma. ba ma laajee Thiès dañ ma da nga pànk problème ba du pànk nag alal la yow naka daga ji nga fi nekkee dégg naa pànk ba ci biir réew mi noonu nga fa nekkee pànk daal boo boo dee pànk dafa am nooy pànk xam nga daa am pànk bu neex xam ban pànk neex pànk bi nga xam ci dëgg rek ngay jaar doo tooñ kenn xam nga loolu du pànk boo boo booy bu wóor bi man nag damay nitu dëgg yàlla da ko def te bañkat laa aussi yàlla def na ko kenn du bañkat laa ma nekk nag ci yoonu dëgg rek laay ànd ak nit bu ma gisul dëgg bàyyi naa la def hmm. parce que man du ma koy tricher daal yàlla moo ma bindee nag ma sant ci yàlla bu baax parce que nga tudd nit ñi ne ah kooku de amul caaxaan wala du tricher sant yàlla la yàlla nag moo koy def ci nit ñu dellu si waat ci commission féminine bi nga nekk ci réew mi léegi bi ma AS bi ma sama ASC mandaté ci laa dem zone bi ma demee zone nag damay eggale li mu ma laaj ci lañ ma def délégué ma dem zone au niveau de la zone ñuy def bureau ma toog fa deux ans observé ma ci bureau damay leen di wax rek bàyyi leen ma observé di xool ni ñuy doxale ni ñuy doxale ba ñu ñëw ba seen mandat jeex de trois ans yooyu bi ñu mandaté waate ci laa ñëw. yaa ngi ci ba léegi xëccoo jël kees gi yore ko. ah yow luy xëccoo kees. ah parce que li ma gisoon moo ma doyul te man ba ma yoree kees. la kees gi changé te ñoom ñuy góor mën nañ koo seede d' accord. saa dañuy ñëwaat ak moom ci commission féminine bi nga xamante ne moom mooy présidente bi lu tax sa ah? dama ko wóoluwut rek. Euh, Ndeye euh, ndax euh, jiite ay jigéen ci biir parti politique yombul parce que en général ci parti yi da gis jigéen ñi xuloo bi xeex bi jalousie bi di daw kii duma jiite xam nga jigéen jiite ko yombul. Mhm. nan ngeen di doxalee au niveau de réew mi. yàlla dafa dogal nag. ñun réew mi jafe-jafe boobu amuñu ko bari la am ngeen ko parti bari lewuñu parti yëpp quoi bari lewuñu leen la la jafe-jafe boobu ñun bari lewuñu ko am na ci nag la wax xam nga su la waxee ne la bari lewuñu ko mooy ñun yàlla dafa dogal Idrissa Seck bu muy ñëw ñun ñëpp dañ ko bëggal suñu bopp àndandoo parce que doomu Thiès la te doom bu mérité bu Thiès bëgg la parce que bu liggéeyee du ñëpp du ñëpp Idrissa ay borom Thiès loolu ñu wax dëgg la ku ko weddi ñëwal Thiès xam naa ne weddi moom gis bokku ci ndax ku ñëw Thiès rek gis la Idrissa moom Thiès dafa naa ne nit du fa tegati tànk tànk mu ngi soxla. xam nga moom mooy sànq Idi sax politique ci lan la ah. li ñu def noonu mooy sànq Idi parce que Idi yi jàppee ko sénégalais mais dañ ko jàppee Thiès waa Ah, moo tax muy non c'est vrai. parce que loolu moo tax. bi parce que Idrissa man mënu ma d'accord mën na koo mais Sénégal. Ah, dama ne la Idrissa bañ naa ko. xam nga tey Macky Sall ko mën a waxal Macky Sall. saa may ma loolu dama koy bañ mooy borom Fatick kese yamp mais Idi lañ ko xoolee. saa euh, may ma loolu dama koo bañ parce que Idrissa ci parteem mm-hmm. tey boo gis bu amee ay cër ñi muy gën a jox ay cër dëkkuñu Thiès. wajes le gëna new tay néew lu mu leen di responsabiliser. bo leen seetee parti parti parti euh, réew mi Idrissa ak coalition bi mu def ak Macky poste yi di am importance yépp wax leen ma kan lañ ko jox ku dëkk Thiès ñëpp ay wa Dakar bambay fenen ak fenen kon Idrissa wa wa Sénégal la bu wa ci waxuma lool mais Idrissa Idrissa élection yi fan la gagné fudul Thiès. li ma ah, Idrissa kay gagné na feneen fudul Thiès nga nan xëy na remportewul yeneen région waaye région yu bari am na lu mu fa am nag lu baree baree bari waaw lu baree bari waaw mais kaay ma wax la bay ci say oom ah, parce que la ku mënta ku mënta gañe fa nga dëkk doo gañe feneen fa mu dëkk nag la war a njëkk a gañe ne Idrissa bu pertoon Thiès tey ku Sénégal yëpp am lu ñu ko wax parce que kon dinañ ni waa dëkkam ñoo ko njëkk a bàyyi te Idrissa li mu wax leer na en politique moom nee na tey bu amee courage di continuer ci politique ba heure bi c'est grâce au Thiessois parce que ñoo ko bëgg ñoko ko ñoko ñoo ñoko jappal wa ko buñ ko bëggee ñi di xarab. te dama ni la ñi Idrissa nak genn génn dama lay may dara. ah waa mairie ma nee nañ génn mais genn que liggéey no du wa mère bi ko bañ na ko. ñaata wër duggul ci mère ba gis ko ci biir mairie. ma ne la bañ naa loolu bañ na loolu wa Idrissa bañ ko falé waaw ga rek lay laaj. euh biñ koy fal ci jafé jafé lañ ko fal ku ne xam nako hmm. bobu mu ngi xeex ak état nguur neexu ta xeexal Idrissa amul jot parce que eta ku mu nekkon ci sa kaw di nga tal leneen lu dul téye ay mairie. waaw mais legui mais kan? Idrissa malgré lolu hmm? dafa jël équipe municipale bu mu wul jël ay nawlem yu ko doyloo jot teg leen fa alal di tek len ah yor 4-4 di lambar la ci fane ci hôtel yi gëna cher ci dakar équipe boobu may ma ba ma yeggale. saa bu ma dag sa yi ngay wax am importance limay may ni nit ñi am importance ding ma may ma leral len ko. mais lima la jam. Idrissa équipe municipale am muñ teg. suuj naa la te ñooñu ñooy yor Thiès. mais moom aussi dañ ko fay soxla. defal ndànk. moom la ñu fal euh, bëti. Hmm. Idrissa dañ koy soxla Thiès Idrissa day nekk cees régulièrement. waaw mais du gis Idrissa tëjuwul. làqatuwul dem daal bu gaa yi dajalee oh, juuti maas yëpp mu ne juuti ngeen ba pare buntam da nga koy fekk Thiès. événement parité muy tabaski muy leneen ak leneen yëpp biir cees la koy defee du ko defee feneen Idrissa këram tey boo demee point E dañ lay ubbil buntu kenn du la tëj kenn du la kale noonu la mës a mel noonu la mës a doxe mais état moo neexut a xeexal ba muy xeex ak état Idrissa li ko nguur gi sëfoon yëpp su fekkonte ne woon du woon ku dëgër. moom it mu am arme yam moom yëpp moom mu génne ay arme yëpp objectif dama ne la kon heure bi kenn waxatul wax Idrissa ah nguuram neexut xeexal mu jël équipe municipale am teg fa ñooñ di doxal dëkk ba dama ni dafa am ñu ñëw nag soxla municipalité bi te waxuñu li ci nekk. ñan la ñi ci ginnaaw te dama lay xamal ne la ku mën dajale benn bureau de travail moo jël mairie kan moo soxla Thiès waaw ña soxla municipalité bi waa APR la ah. mais Thiès Macky Sall ci boppam hmm. moom ci boppam laa la du jël xaasam di ko yàq ci Thiès lu tax parce que xam na ni yéen pour yow ak borom à l'unanimité Thiès ñëpp a bëgg dama ni la loolu mënul am fenn ku mu ku mu loolu ku mu dal sax nga gën a dégg Thiès dama ni la ku ñëpp bëggandoo benn dëkk mm. benn kër gi nga dëkk sax bu la ñëpp bëggandoo mm. bu yeboo nga takk say bagage xam doo fi taxaw kuy gaaw a ngay doon ku amul a ah, am ku ami Idrissa duma la ne ko bëgg de dama ne Idrissa te loolu doy na sant yàlla parti réew mi yéen euh, jamono ji fan la seen ay activité politique toll parce que da ngeen di tekk rek dégguñu leen dara waa ah? dinañ ne tey activité yi au niveau rek waaw ñu ngi waxtaan suñu biir ñoo ngi réunir ñu ngi xool nan la ñuy jàppale Idrissa ci tang kelai tahun. Kan? taxaw adalah de la république wala ñu minta. yalla ah waaw mu magat président de la république dama ni abla abdou muy tok mo gëna magat idrissa fu muy magat ini. yeen légui bu yebo ko idi idrissa fu muy magat idi mom maire lay doon mom ba fa dañoo ñaan yalla nak mu nek président nek lool nga mebet te lool lañ koy ñaan dina sa géwél la la wala bokk mu noppi sa géwél la wala saneel nga sa géwél judd bu noppi xamal la équipe municipale am mu tegit ñu ko am compétence lañ mais seen njariñ a bariwul ci seen njariñ bari dama ni dama ni ñoo ngi liggéey eh, li ñu war a ñoo ngi koy liggéey waaye déglu Idrissa Seck ba mu nekkee premier ministre la def ci ties lañ mëna wax nee nañ bañ ko joxé mairie ba légui defu fa tous ah loolu yaa ko Marseille sax. waa Thiès waxuñu ko amuñu ñu koy bale. dama ne Thiès tamit mairie bi bu ñu dajalee juuti yi indi ne dugal leen kër ga du dem sax mairie. ay saa baal yàq der nel ah. astaghfirullah waay xam nga ni Idrissa Seck du du genre boobu. melul noonu sax yow juuti yee bu ñu wàccee dara ñor ko lu dul Sénégal ak Thiès. dara nag ñor ko ah, Sénégal ko ñor ak Thiès Sénégal ci Thiès dégg nga dama ne la Sénégal ko ñor ak Thiès ndax lii moo tax nag indi la mën a falu nataalam fa la juddoo sa région nataal moom wax dëgg yàlla da nga koy bëgg ba pare doo ko mën a ah, bëgg sa réew ku bëggul sa biir kër doo bëgg mbedd mi kon nag biir këram mooy Thiès moom la war a njëkk bëgg doo ko bëgg Sénégal ah. bu bëggul bu amul woon Thiès hmm. bu mutee Sénégal waa Sénégal war a daw bu amul sa dëkk kay dañ laa war a moytu leader leader am na dëkkam régional la ah, ah leader régional loolu da yaa koy wax leader national la ko ne xam na loolu dama ni bu ngeen ne deful dara Thiès du ma ko d'accord tay ci sànce la nek sanje ay tali yu muy defarat ah déedéet ko ko defar Idrissa sek mairie Thiès ñoo koy defar. léegi bam bam fa tek wa mairie bi Idrissa la parce que Idrissa ah. mom lañu fal mo na ci bopp bi mu jël signature am délégué ko ku mu jox confiance mu yanko ba jatara mhm. mu yoral ko ko diko doxal nan doxale ko war a doxale Yankhoba mi ngi noos de waaw loolu ngeen xalaat noos bu metti la nekkee Yankhoba waa Thiès waxuñu de ndeel mm. ñenn ci waa Thiès ña bëggul Idrissa mun ñoo bëgg Yankhoba Diattara parce que nag ginaar ku ko bañ bañu cuujam waaw kon ku wax ko waxul ci Idrissa lu rafet doo mën a wax ci Yankoba Diattara lu rafet mais nag Idrissa moo ko fa teg te mu ngay liggéey na ko Idrissa bëgg liggéey bu baax bu jaar yoon tey jii eh. boo demee Thiès fekk tali parcelle ba ñu ngi koy defar mu ngi nekk en chantier fatt tur nga dem Medina Fall ku fa dem kontaan luñu di dindi xolle ba mu set nak di ko ndax dara am. waaye léegi benn question rek. nga dem Ablaye Yakhine bi ñëppay jooy. ma nga nekk en chantier kon yaakaar ni liggéey. 2017 ngeen Idi Sénégal. Idrissa am naa bu ci 2017. incha allahu rabi bu tàllalee loxoom sénégalais yi ko. yow nag mbokk nañ la ba <laughs> Bueno. yow kon APR bongo ni way man dal APR kay indi nañ sax tama man borom tama ji la xamul fu mu fete ku teug mu ah xana yow da nga bëgg mu teug loko partalé ah. mi ngi fi ñu ñew ci euh, major major wa major man euh, lima jaaxal moy dama fogg ma togaat mbuur tuti mbuur mbuur amul ño xamanteni fa représenter APR si am na ñu fa représenté affaire. Ah, ah, ah, ñan la wala xamoo leen. si si xam naa leen ñan. yaa yaa yaa docteur Diba. actuellement sax moom mooy PCA wu kii SAPCO. waaw léegi yow lan ngay dem di buuxanteeg. waaw léegi ndax nga bëgg a buuxanteeg yow mënoo ñëw rek fii nii ñëw a liggéey. non nga bokk gis nga gis nga. déglu leen waaye saa yi deuxième mandat gars yi nee na du ngeen ko am ndax. mënul sa waay jaaxaan na de léegi. waaw mais li ci kanam rawuli bët. ah li ci kanam a ngi dem de. li ci kanam raw li bët. la waaja ni woon dañ ko fal pour 60 mois waaye set yii ñu nii nii de gisuñu dara. waaw waaw waaw yéen bi de diis na. ba mu ne uj moo waral réaménagement bi. mani mhm. sénégalais moo yàkkamti. ah nu mu yàkkamte. nu mu yàkkamte. ndax tey de. sénégalais dañoo sonn moo tax ñu yàkkamte dañoo sonn moo tax ñu yàkkamte. même boutique bi boo ciy dugg di jënd sax. da ngay gis da gis beneen nit sax yóotu ne la am jaay ma. aywa <laughs> tey jii euh, euh, président de la République tey bu fekkee ne jox nañ ko réew mi tey xaalis bi di génn agogo. fan la xaalis génn. non dama lay wax par exemple. ñu affaire yëpp changé da mais nit ñi war nañoo tiit. Hmm. mais war nañoo tiit. ah nañu tiit mais c'est parce que réew mi. Ah. il faut xam nga réew mi dafa feebar. lu ko dal réew mi lu ko dal. nga ni lu ko dal. mu feebar yëpp. idée bloqué yëpp PDS kii euh, PDS ak euh, ko teg. lu lu lu bokk na ci microbe yi. Ah. donc léegi il faut que nag boo ñëwee. parce que Maguette nga woon yow tabaski gi nga xamante ni ñu sonn. léegi xaalis suñu dara. soo ñëwee il faut nga jañoo si kenn faj sa soxla nga naan ma ay. boo ñëwee mais gis nga bu ñu ja bu ñu ko jañoo si réew mi lu fi xewati idil kii lañ koy jiiñ. mais d'accord mani hmm. il faut ñu diagnostiquer réew mi. mais diagnostiquer bi dafay bëgg a yàgg sept mois ba pare xam réel xam feebar. ñaata weer wala ñaata at. mais mais ñun cinq ans la ñu jëm. cinq ans ngeen ko bëgg a diagnostiquer. ñu béy cinq ans te mbir mi te mbir mi yàggatul. ah mani. lu yàggatul yaa xëy yaa xëyti. yaa yaa man ñu làkk naar léegi naar la bëgg a yàq. ma ni. waaye kañ la doon naar. président waaye yaa ngay làkk naar yaa xëy ci président Macky. béti kii naar la la bëgg a dem xam nga nee la aja nga yàq daal aja <laughs> nee na la yaa xëy ci mais président Macky toogul sax. loolu waa ji moo neex. nar ak Mauritanie dañoo dégg. non mais sax dañuy émission. mais léegi léegi tey bu ñu nee kut koo kut. kut koo kut tey mais. mais président moom kii Macky Sall mais du Messi. Ah. Macky Sall fi diggee ba diggee fi jëkkër dem boo ko am mais ci la nekk nag. moo ko fi diggee ba kañ waa kañ kañ def benn ah, résultat. gis ko ko non man ni la mais pourtant pourtant tey président bi mu toogee ak léegi mais mu ngi def ay at. ban at la def nee ma ban la posé rek bu nu mën a wax. waaye yaa ngi dugalaat sa bopp ci kan waaw tey tey tey jii man. tey ci li may yëngu muy santé. Hmm, lan la fa def mhm. mais

foofu la ñuy toog faju waaw loolu kañ la mbaa ñeneen ñi nga xamante ni ñu ngi toog di xaar du fekk yàlla suñu borom fii di fees parce que c'est normal parce que euh, parce que dafa am parce que euh, parce que dañ koo songandoo ak doole santé dañ ko songandoo ak doole mm-hmm. du mën a euh, du du mën a nu mu tudd du mën a du mën a kiyee noonu du mën a kiyee yombee noonu waaw léegi mënta taxaw pour mu jéem a yomb mais ci la nekk problème mais nan la ci nekkee dafa tëdd di nekk wala dafa taxaw de ci waaye ma ne la gis nga président benn ma ne la ma ne la bekk suukar sax su ko wàññee acte la hmm. nañ ko ko nangul ndaxte tey ku la ndaxte tey jii ku la dig ku la jox ku jox añ bu la digee reer war nga koo gëm waaye yow dafay gi ma gis si moom bëgg àdduna ma gis si moom moom ma way la way wey saay saay waa sa jëwri jëwri li ma ñu ne kanam rek waxal ak moom saay waxal sa jëwri jëwri xalaat gi dafa am loo ko dig Thank you. merci beaucoup. waaye saa yi dimbali ñu waay ngir yàlla. ba nga wax ñu ñoo rey lépp yi ñu fàttuwaay. merci merci beaucoup merci beaucoup voilà merci beaucoup merci beaucoup. yow sa baat neexul. man kay loolu moo ma ci jaaxal vraiment. yow kii bu lay way léegi doon. dégg wax la ko quand même baat bi neexul. <laughs> waaye tamit am na loo xam ah, ne. neexul ko doon wax ci mbirum santé bi. et puis xool sa waay ni am na loo xamante ni bëgg na ko ci. <laughs> Hmm, quand même. waaw problème mu santé man. soo leen ma ci laajee dinaa ci sawar. mooy parce que man euh, euh, trésorière comité de santé la poste santé si talami bi ma nekk. <laughs> muy santé xanaa foo nekk yaa yor kees mbaa doo joxe xaalis gis nga joxe ah, yow xam naa li ngay def yow bu waal nawetaan di audité nga jël xaalisu santé dugal sa ne gis nga yow xam nga yokk na ñu ne la waaw. bu ñu di audité nga bi sotti ci. waaw léegi loolu dama lay bàyyi nga ko ñi àndal ba am. sama ICP. waa ji ndaw si nga ne waaw trésorier trésorier rek. mbaa doo jaxase kees ya. déet déet eh, déet may leen ñu. xale tuuray. waa kii kana boobu. yow xanaa rang bi ñëwee ñoom ñoom ñoom. constaté coalition bi dafa ñëw ba fii bu ñuy di boy ñii dëggal ñii ñii man waaw coalition bi comme comme àndandoo na ba feeñ kon kontaan naa xam naa ne daa dëgg bu dëgg ñu doon ñu waaw côté santé man loolu dinaa ci sawar parce que man volet bi may ñaan autorité yi ci côté boobu may wax ak ñoom Makeek Eva Maricol mi yor santé bi mooy damaa gis ni santé. Hmm. Euh, booy xool poste yi ñoo gën a sonn. Ah, parce que poste de santé yi. Ah, dañuy ne ci ay quartiers yoo xam ne quartier populaire lay doon. loolu te ba pare population bi seeni besoin booy xool day euh, ëpp tey li nga xam ne nii moyens yi ñu yor foofu du goy par rapport ak besoin population bi demande bi mooy ëpp. Hmm. léegi nag man li ma doon ñaan mooy état bi dañ ci war a jàpp. te médicament aussi day am rupture pour ñu am ko problème la. des fois poste yi du ñu am médicament te tey booy xool ci médicament yooyu ñun li ñuy jaay mooy gën a yomb ci population bi tey boo amee malaat bu dëkk ak yow feebar néew doole parce fay nekk ñu bëri ay néew di doole la ñuy doon suñu néewee doole ñëw ci yow nga faj leen mën leen jaay garab bu yomb ñu mën a dem faju ci mën a am xaalis boo xam ne au moins dinañ mën a jënd garab boobu parce que mooy gën a yomb ñu dem ci pharmacie yi léegi bu fekkente ne tey garab boobu ñuy jënd ci poste yi ñoom malade yi bu ñu ñëwee du ñu mën a am sax garab boobu da nga leen di bindal ordonnance ñu dem pharmacie daw wuti lebbi fi dugg fi genn fi des fois dina am sax ñu ciy loru parce que ni ñu wara fajo fajoo lañ du am da nga leen di bindal ordonnance ñu obligé wër buñ ko amul dañuy ñëw ni la man awuma dara ma ngi ni te yow amo garab bi ci poste bi ba man ci def sa des fois ay social te privé yi ñëpp ñu ci def privé yi ñëpp ñu ci def et puis pharmacie aussi dafa cher te boy gis poste yi aussi duñ leen jappalé dañ leen waron di subventionné di leen jappalé di leen may doole di leen jox xaas bu bari jox leen garab yu doy aussi en médicament nga xam ni vraiment bu ñu nekkee fu dinañ mën a dimbali population bi te ñun problème boobu dañ koy jooy d'accord léegi dañuy ñëw ci euh, dégg nga loolu mu wax en tant qu'agent de santé dama lay mayaat doo dara aussi ma lay xamal ni la mhm. sama poste de santé si talami mhm. tey bu ma la nee grâce à Idrissa Seck oh. moo tax tey ñu oh. maternité oh. bu ñuy accoucher